édition 2023 màggal Serigne Bara Khourédia fii si Sam Serigne Moussa Mbaye di kenn si taalibe yi di taalibe Serigne Djili Mbacke moom mi ngi ko doon amal ci këram ànd seeg mbokkam yi jogeñaaleem yi ak it ay xaritam ak ñëpp ñu mu bokkal langue yi di wàllu politique mu doon pouvoir ak opposition kenn wutewu ko woon jànkatu xasida yi ñëpp teewoon nañu kilifa yi bàyyi ko fu nekk si département bi mu doon chef religieux du notable di acteur politique maanaam daal kenn wutewu ko woon mu amal ko si ay kaamil yu takku jànkub xasida yendoog xarit yi bernde leen waaye tamit guddi gi bi ñu reeree ba noppi ñu amal waxtaan yu am solo témoignage yi nag jëm si jëm ji ñu jàpp kenn la si mbaax si woyof ubbeeku tey nag sonn si doomu aadama yi boole kook doon taalibe tigi aouzu billahi min asaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim hamdi wa liman kulli bi saara la hóori dan doona suux ñu ñëw ci bis boo xam ne nag inda zikri saalihiina tanzilu rahma borom bi nee na bis bu ñuy fàttaliku nit ñu baax ñu yàlla di wàcce yërmande ca la koy gën a firndeel mooy bis bii nga xam ne tey jii ñu ngi wàcc màggal Serigne Bara Khourédia ñu gis borom bi subhaanahu wa taala di wàcceeb taw ca taw moom yërmande la kon yàlla ko borom bi subhaanahu wa taala tuur ci mboolem njabootuk Serigne Bara Khourédia gi dund ak gi dem def ko ci mboolem njabootuk Mamour Diarra mos xaadali min bani eh, yàlla dogal sëñ Moussa am lanteeg ñëpp rawatina jànkati xasida yi sëriñ Xaadim Fall mii doon yëkkati xasida yi mi ngi feggoog sëriñ Xaadim Guèye Touba Tawféex moom itam di jànkat xosaayit ak sëriñ Seexuna Kebe ak ndongo lii di wax ak yéen ak Baye Fall sëñ Pape sëñ Moussa di nit ku baax dinu fekk fee ci keppaaruk sëñ Muntaxa di yëkkati alalam dina ko jox ñu ñëw ci nag bis boo xam ne fekk ci sunu xarit Moussa Mbaye di nit ku baax ànd ak ay mbokk yoo xam ne ñoo bokk lenn lu nu yëngu muy si géewu géewu politique bi waaye dem na ba politique booleetunu li nu boole mooy mbokk li nu boole mooy dëkkandoo li nu boole mooy Sëñ Tuubaa waaye li nu boole mooy al alaqa te loolu nu borom bi subhaanahu wa taala digal mooy waxtasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu bëgg sëriñam nag ndax gis nañ taxawaay bi mu ko defee chaque année mu ciy def lépp lu mu mën ak lu mu mënul ngir ni mooy bis bi. te li ñuy boole di jeex mukk ndax ñoo bokk dëkk ci département bi bokk nekk ay mbokki taalibe bokk Serigne Touba te loolu nag moo gën a foor lépp gën a kaw lépp te du jeex mukk ba ilaa yawmi diin kon li ci doole muy politique bi dafa ñoo war a gën a boole waaye waru ñoo tàqali ay nit nag wuute wuute gis-gis waru tax mukk ñuy xaajaloo ku ne xool foo jaar nga jëm fa des fois nag mu am xëy na politique moo defee noonu waaye ñu gën koo rafetal daal Moussa aussi ñoo ngi koy sant bu baax di ko gërëm baayam yar ma lu nekk ci man moo ko ci def euh, waaye moom it mu jël lépp cër boobu yëpp daloo ma ko ak li may ñàkk solo lépp mu jox ma cër bi mu jox kilifaam teg ma fa mu ko tegoon ba muy dund wala sax fu ko raw ak li may ñàkk solo lépp teg na ma fu kawe boole ma ak sëriñam sëñ jili sëñ jili teg ma fu kawe du def dara moom mi te tàgguwu ma lu ñu jaaxal ci moom ci moom la ñu ñëm fi ne nekk ku fa am problème man man ci Moussa parce que kilifa yi nga xam ñoo nekk ci réew mi yëpp ay xaritam lañu boo ko xasee dugg ci nopp rek loolu saafara na nit ku mel noonu nag dañ koy protéger moo tax ñu ñu ñaan yàlla mi nga xam moo mooy moo man ta moo man te am te ko moo ko amal te ko man moo ko manal yàlla na ko yàlla yëkkati taxaw ko làq ko yenn ko teg ko fa ñëpp gis yàlla musu ko ci cat ak musiba ak balaa na la sina ila sarsara qad الدارين أنصارا يا ربنا إن الورى تدره لأوليائك ginnaaw yooyu témoignage moom Moussa mbay amul lu dul di sant waaye nag sant ki nga xamante ni kenn la si moom di Antoine Félix Diome mi mu jàpp ni kat bis bi la taxawaayam rafet na si loolu ak it mboole mbokk yi ak joge ñaale yi. waaye nag di wax ne bis bi ñun sant nañ ci bu baax bëgg nañ ci bu baax ndax mbokk yi. waajur yi ñëpp ànd nañ ko ñun soppee yi ñi nga xam ne ñoom lañ bokk langue politique ñu bokk ci opposant bi bokk ci pouvoir bi ñëpp teew nañ fi muy bis bu màgg kon ci ñun sant nañ ci yàlla nag bu baax a baax a baax a baax a baax di ci beral ak cant tamit Antoine si Diome ndax nit mun ngeen a bañ a def diir bu bu bu yàgg waaye xañ na yàlla mooy boole ay doomu aadama te loolu def na ko sama diggante ak moom kon dama koy sant bu baax di ko gërëmte te ku ma jàpp la ma fonk la. maa ngi koy sant di ko gërëm ndax bis bi tamit maa ngi seereel mbokk yi ñëpp ni jàpp na ci lool ndax taxaw na ma ci ndax démb rek kon euh, ko nomee euh, mu nekk pétrole ak énergie dembu li muy xat xat xat xat xat xat démb nekk na ci réunion daanaka 17 heures la commencé réunion bi ba minuit nangam da nga xam ne jëlagul fonction sax nga xam ne kooku pétrole bi commencé na liggéey kon kooku bëgg senegal ak bëgg liggéey ci moom la yem ndax démb daanaka li muy guddee guddee guddee ñëw avant muy ñëw woo na ma laaj na ma fu màggal gi toll laaj ma lépp kon loolu moom itam yëg la ak cër bi ko suñu boroom jox mu wàcce boppam oyof yi ba jaxasoog man ci noonu kon man tamit dama koy sant bu baax di ko gërëm képp koo xam ne rek teew nga ci bis bii maa ngi lay ñaanal ci barke Sëriñ Tuubaa barke Sëriñ moor Jaara nga xam ne Sëriñ Tuubaa def ni képp ku ko liggéeyal am nga ñeenti pay Sëriñ Tuubaa wax loolu man man danaa la fay man Sëriñ Tuubaa Sëriñ Mor Jaara danaa la fay yàlla danaa la fay yonent bi danaa la fay kon maa ngi ñaan képp koo xam ne dox nga ba teg fii sa tànk ku fi indi woon jafe-jafe ak xat-xat ak tawat yàlla na la ko sama boroom saafaraal ci barke Seydina Muhammad daarayni ansaara ya rabbana innal warata darao li awliyaika maal yasmao biñ bàyyeekoo fii dem nañu si kër sëriñam sëriñ ji li Mbàkke am kontaan lool si moom rafetlu taxawaayam si màggal gi boole ko tamit ñaanal ko. kon day ñoo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm tey ñaan yàlla fayal nu leen rek nu bokk fay gi nun ñëpp daraje Serigne Touba ñu teewi kay déwén déwén te déwén dàq ren te kenn na bañ a manqué amin sunu borom mën na ko mën na ko yàlla na ko def barkeb Sëñ Touba nu nangu ñaan màggal gi ñu ko doon amal ci Touba Sam Sëñ Moussa Mbaye nag dajale woon ñi nga xamante ni ñooy mbokk yeeg joge joge ñaale yi berndeel leen boole kook dundal bés bi tamit ci ay kaamil ak xasida di waajal nag édition 2024 bi